asalaamaaleykum sama gaañi kii nag benn gel la faama ndeysaan faama dafa timide timide timide timide bi moo du timide yow faama am benn copain benn bu baax copain bi daal lu faama joxoñ mu dagg lu faama joxoñ mu dagg lu faama dem bay bëgg sax copain bi naan da jënd léegi nag copain bi tout le temps day wax day ñëw ci kër gi quoi monté di gérer quoi bu ñëwee faama du wax faama da koy xool faama daal dafa yambar bi ma du yambar timit nag waa ji nag dem ci yaay ne ko man daal man daal tata man daal vraiment man faama damay ñëw mi du waxtaan ak man dama bëgg vraiment su ma ñëw mi waxtaan ak copain bi dem yaay teg faama ne ko yow faama faama jonge woon dara faama ko am sa far koy waxtaanal bëggal ko génne say fee mone sa bopp yow faama àdduna du nii waxalante kii waxtaanal ko mu ree kaf ree ngeen da ko ne tàppante fii lii laa lii lale léegi nag faama ne ko waaye yaay dinaa jéem ndeysaan ci guddi nag saawaay sangu ba set ñëw nag sañse lu ngand ñëw nag ndeysaan ñëw nag ah mu ñëw toog mu ñëw toog ci loolu ñëw toog ci saal bi comme d'habitude quoi di waxtaan ak maire bi di waxtaan en même temps aussi yaa kii Fama et tout et tout benn instant maire bi nag piis Fama ko Fama maa ngi dem waxtaanal ak moom ndeysaan Fama noppi ay deux minutes trois minutes yooyu rek tourné ne ko <laughs> waa Saliou waa Saliou sa papa yow jong na